alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiya wal mursalin sayidina wa mawlana wa azimana muhammad ibn abdillah salawatullahi wasalaamu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabia bi ihsanin ila yawmi ddin mbokki lislaam mbokki Cheikh Ahmad Tidiane mbokki Sénégal mbokki àdduna bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziara fii ci Washington maa ngi leen di nuyu ci munasaba bi nga xam ne xew-xew bi nga xam ne muy dernier xew muy seetu eh, sant ak yàlla dajee sant yàlla ci yàlla mi nga xam ne moo ñu tag moo ñu boole ak Seydina Ahmad Tijaan radiyallahu anhu nga xam ne mooy suñu wasiila ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne yonent bi mooy wasiila ci yàlla loolu yëpp ñu ngi wax ne jërëjëfe Mawlana Cheikh Ibrahim Niass moom mi nga xam ne moo ñu moo ñu boole ak eh, sang bu tedd bi nga xam ne ni nga xam ne noonu lañu yonent bi sallallahu alayhi wa boole woon ak yàlla bi muy génde àddina mu ne taraktu fiikuma in tamassaktum bi lan tadillu abadan bàyyi naa leen bu goo xam ne catleen seen loxo catleen ci loxo yàlla du ngeen feeg bàyyiwu leen ko du ngeen du ngeen réer mukk la àddina ñu ne ko moo boobu mooy gan mu ne téere yàlla bi ak sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam téere yàlla bi mooy alquran sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jaar-jaar yi mu jaar ak lim ko pratiqué dafa mel ni bee mooy théorique bi bii mooy pratique bi parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca jamonoom jàng ci mboolem nit ñi nga xam ne ñi jàng dafay mel ni bokkuñ ci moom ñu indi ko mu ñëw jaar ci lumu yi nga xam ne jàngu dara lumu yi mooy koo xam ne dama jàngoon ci ndeyam rek loolu la xam loolu xasta la ci képp ku dul yonent bi waaye moom tagg la ci moom ndax mu indi xam-xam yi magasin yi xam-xam yëpp mi ngi ci alquran karim ba léegi soo gisee diine yëpp di wàcc lislaam di gën a tasaaroo lislaam dafa làmboo loo xam ne benn diine amee ko wax na ci domaine bu nekk wax na ci nit ki wax na ci euh, ci jëf yi wax na ci dig sa digganteem ak yàlla wax na sa digganteem ak mbokk yépp waaw kon nag alquran yooyu bi ko yàlla indee fekkoon ne daf koo bàyyi rek mu ñëw wàcc jibi yonent bi xam xamoo xam mënta bind mënta mënta wax kon ni ko woon daf koy wax rek waaye dégg rek daf ñu ciy waaye nag su fekkee ne moom yàlla daf ko def ni moom muy muy muy muy jëmmi sharia mooy jëmmi tarix jëmmi jëmmi lislaam comme ni ko Baye di waxee mu ne su waxee sharia la su defee su wax su su defee sharia la lépp lu mu wax rek soo ko jëlee def ko ci arab rek mu doon xadiis yonent bi la mu doon alquraanu karim mu daal di ñëw nag daal di gannaaw nanga téeméeri at gannaaw fukki siècle ak ak ak ñeent mu ñëw moom itam bi mu ñëwee daal di loolu ñu alxuraan doon santaane def ko ci ay texte moom mu def ko ci pratique ba nit ñëpp roy ci moom ah, loolu gis na ràññee naa ne toppam bi soppeem bu bu bu nga xam ne moo topp ci kawam muy Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu bi nga xam ne moo doon wax ida saara xeeru naasi surtout waraahu win xale yamun fal masir bàyyi leen waxtu wu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegee tegee tànk mu teg tànkam topp ci kawam su fekkee ne taxaw na moom dema mënul sa am te yonent bi du taxaw mukk la àddina ndax mu fekkee jant bi moo moo moo du taxaw waxtu ne muy wër suñ ko gisee mi ngi ci kaw asamaan suñ ko gisul mi ngi ci ron ron suuf si di wër di su fekkee jant boobu moo taxawoon sakkaa nag yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne jant beeg yàlla wax ne ko ne su fekkoon ne tuddootoon yow du bind dara su ma bind ma bind jant du bind weer du bind du ma bind eh, eh, biddiw yi du ma bind dara bàyyi mun na ñaari maqaama yooyu yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam neex mi jox la ko ak su taxutoon yow du ma bind kooku nag eh, Mawlana Cheikh Ibrahim moom suñ fekkee ne ñun mënuñoo am maqaama boobu ñu jéem a ut maqaama boo xam ne dañuy topp ci gannaaw Mawlana Cheikh Ibrahim fu yonent bi dem tànk mu topp ci kawam ñu ni topp ci Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala Cheikh Ahmad Tidiane nag yërmande la boo xam ne dafa ñëw ya yàlla yonent téeméeri at yu nekk dana indi ku jëddit diine ju bees dootu ñëw waaye déggin wu ees mën naa ñëw déggin wu nga xam ne nag moom lañ mujj dëgg muy dégg yoo xam ne dëgg la muy dégg bi nga xam ne moom moom la Cheikh Ahmad Tidiane indi tariqa soo ko jëlee di ko A ba Z amul ci fenn fu ñuy tudd nday Cheikh Ahmad Tidiane wala baayam wala askanam kon nag moom tariqa boobu yëpp yàlla te amul ci benn euh, euh, parti boo xam ne alquran indiwu ko du benn yoon waaye ay yoon yu bëri mu ñëw indi ñu ko firil ñu ko ñu dégg ko di ko tatbiixee comme ni nga xam ne noonu la ko saxaaba yi doon defee ñooñu dañ doon xool di def ñun ñuy dégg di def walla ñuy gis ci Mawlana Cheikh Ibrahim di def kon nag su amee mbooloo moo xam ne ay mbooloo mu ute lañ nekk ci ay barab yu fasanti ko ñoom ñëpp ñu jaayante ak yàlla ak eh, daal di jël tariqa tijaan eh, tariqa tijaan lamboo may goo xam ne eh, ku ci nekk doo da nga mucc ko faw parce que soo xëyee ba soo xëyee soo ko defee dafa mel ni li nga fanaanoon yëpp effacé nga ko di ci jum-jum su ngoonee nga def ko dafa mel ni kii loolu tax suñ ne taalibeet see xamante Tijaan daa euh, dara doxu digganteem ak dem aljana lu may dee du caagan ñoo gën ci nit ñi du gën caagan ñoo gën for ci nit ñi waaye ñoom su fekkee ne manque bi nekk ci doomu aadama te doomu aadama yëpp la am ndax waxtu wi nga foogee ne ci nga gën a sell ba nga jàpp taxaw sa sajaara di julli sa xel mi mën naa génn dem ca portable wala mu dem ci atelier wala mu dem ci oto ba wala mu dem ci leneen ba nga xam ne danga nga sikk ndax est-ce que ñaari rakka nga def wala ñetti rakka nga def loolu cum boobu sa digganteeg yàlla sa digganteeg jaami yàlla yi sa digganteeg sa bopp yëpp astaxfirullah la ñu koy fase salaatu ala nabi mooy Mawlana Cheikh Ibrahim moo ñu wax ne yàlla yàlla dafa ni yonent dafa niru niru niru niru yàlla ba nga xam ne seen différence mooy kii maye rek ci lañ maye waaye ba yonent bi ba yàlla maye yonent bi ci la gëj a maye moo tax mu ne suma moomeel gi ku ci bëgg suma yermaane gi ku ci bëgg a tàbbi na nga topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo ko toppee su gërëmee ma gërëm kon nag kooku mooy suñu wasiila ci yàlla Mawlaana Cheikh Ibrahim tam mooy suñu wasiila ci ci ci Cheikh Ahmad Tijaan boobu kon su amee tooloo ci weer wi nga xam ne mooy safar weeru safar benn weer rek moo ko jiitu muy muharram safar mooy ñaareelu weer bi ci at mi nga xam ne mooy atam juddu gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu amee ak léegi mi ngi nekk junney at ak ñeenti téeméer ak juróom fukk juróom waaw kon nag benn weer ci def ñu ngi ci weer ñaareel mel ni su fekkoon ne weeru tubaab yi dañ naan bii mooy février su fekkee nag ñun ñun ñun ñun ñi nga xam ne lislaam lañ diinoo lañ lañ diinewoo ak lim santaane moom la ñuy def lim tere moom la ñuy jéem a bàyyi kon war nañoo toppatoo suñ taarix xam suñ bopp xam li nga xam ne moom lañ moom duñ ko jaawale ak liñ moomut waaw gune yi Sénégal ni ñi miin nañ ba nga xam ne su vingt et su trente et un décembre jotee wala vingt quatre décembre ñëpp dañuy jóg di ko feet te bi nga xam ne moo eew pour ñu feet ko dëgg dëgg dëgg dëgg mooy weer bi nga xam ne ci lay weer muy muy muy muy hijra bi keroog bi yonent bi gàddaayee diggante bi mu gàddaayee Màkka ak bi muy àgg Euh, fukki fan doo xam fukki fan la keroog ba mu àggee keroog dafa mel ni keroog moom loolu mooy naissance l'islam yonent melu ni keneen ñuy jël di ko di di ko di ko di ko jëmmalee boppam waaye daf ko jëmmalee l'islam keroog dafa mel ni keroog lañ fondement l'islam ndax fa gëlëm nga njëkk a sëgg foofa dafa laaj teg ku moom fii ñu ñu ko ay xale yoo xam ne jirim la mu ne daf koy fii lay def jumaa ji ba ñoom ñu ne ko mu soog koy loo bëgg ñu defal la ko mu ne déedéet ab yonent du gàddaay du defal dara lu may ci poche boppam moom mu jënd ko ci boppam ba pare nag bi wàcc ñaareel ba ba gëléem gi muuree mu daal di wàcc nag ne xaaw nañ ban allah mi ngi tegtalee ne fii mooy wàccukaay bi nga xam ne mooy mooy mooy mooy bisam bu mujj te gannaaw loolu dund na fukki at xaar waaw mu mu daal di wàcc mu wàccee foofu néeg boobu fa la doon fala fala fala uy jee boromam ci néeg ndey ay sata moo tax ba nga xamee ne yonentu waxoon na ca dundam ne ab yonentu fu mu deeyaa duñ ko toxal dañ koy indi dañ koy dañ koy foofa moo taxoon loolu gërëm gi di muur loolu nag di suñ taarix ci la lislaam njëkk amee jumaa joo xam ne mi ngi koy tawax ndaxam bi yonent bi di gàddaay am na ay fan ci bani awf ci boobu àggu ak seegul Medina waaw toog na fa fa njëkk a julle ak àjjuma ñaari ajjuma door a gàdda ne ne fi mu ne toogtaloon door a jaal dem waaye ba mu àggee Medina la ñu rëdd jumaa ji première jumaa ji nga xam ne moom la ñu rëdd ci lislaam ba nag moom daal di wàcc ba at fukki at na ci juróom-ñaar fukki xeer juróom diggante xare yi ak ak njàngal yi ci xajjatul wadaa mu def yépp waxtaan ba ne ndax jotal naa ba nga war ci gëlëm nga nga moom mooy moom mooy xaswa xëy gëlëm gu jigéen mu taxaw ca ca saxaraatu ya daal di wax bàyyi mu ne lépp loo xam ne ñetti téeméeri góor danañ ci dajee ci àddina bi ba àddina gune gi mujj juddu yonentu wax na ko keroog saxaaba yi ñu ne su dara xewaana dafay mel ni sax koo xamoon mu tukki du yàgg ba ñëwaan ni nga koy xàmmee mu daal ne ne ndax jotal naa ñu ne jotal ñu ne ñu ne ko jotal na mu yëkkati loxoom ci kaw ne yàlla déggal ñu ne jotal naa daal di ñu joxañaat la ne ndax jotal naa ñu ko jotal nga foofu la al yawma akmaltu lakum diinakum yonent bi nit la waaye du comme nit ñi li ñuy xam ne moom lañu bu sayri di ne muhammadun basharun daakal bashar bal huwa kal yaaquuti bayna al moom yonent boobu sallallahu alayhi la waaye du comme nit ñi te loolu yërmande yàlla su neexoon yàlla mu yónni malaaka ndax jibril malaaka la yónni ci moom waaye nag ba mu koy dem ba di ko jox lislaam ak julli daf koo jël ba jibril mënata dem ba mu demee ba asamaanu juróom-ñaar mu dem mu ne ko jibril ne ko fii laa mën a am mu ne ko sang bi man mënuma moo kenn dana ànd ak sa xarit ci tukki mu tiisee nii nga di ko bàyyi mu ne ko juróom-ñaar fukki junne ci kanam suma kanam bu ma ci romb rek bu ci àgg damay lakk ni sa cunkóor di lakkee ci safara mu ne mu dem di xotti dem di dem di dem bokkoo amatut suuf amatut lépp loo xam ne matière la ci yaram ñu delloo ko ca lam nekkoon ñu delloo ko delloo ko delloo ko ndox mi ñu delloo ko ci géej gi suuf si ñu delloo ko ci suuf ba dara desu fa lu may la fa nekkoon li nga xam ne loolu la bàyyi doon wax naan nuuruhu awwal wujud wujudan wa huwa aslul usuli wal anjaam leer googu moo fi nekkoon yàlla te jëli bu njëkk ba amul seede ndax kenn dara néew fa lu dul moom pare nag gannaaw tëjali ñaareel mooy bim defaree yonent yàlla Muhammad mu ne kuntu kanzan lam oraf fa ahbabtu an oraf fa xalaqtu xalqan wa bihi yaarifuni kooku mooy suñ sang sang boobu nag bàyyi gannaaw juróom-benn fukki at ak ñett la dem ujji boromam ci xajatul wadaa keroog ba mu waxee ne ndax jotal naa ñu ne ko waaw mu dellu Medina ba mu demee juróom-ñett fukki at ak benn juróom-ñett fukki fan. ak benn la fa toog daal di uyu boromam du bàyyi ñu diine ju weex tal dara dara la na ci waaye nag comme àddina bi dafay soppeeku te yàlla dootu yónni keneen te yàlla du tooñ su ko ne àddina dafa dem ba nga xam ne mel na ni téere yu njëkk yi nga xam ne tur bi rek mu fi des mu réer kon ni ko noonu duñ xam duñ xam lan mooy dëgg ak lan mooy lan moo dul dëgg moo tax nag téeméeri at yu nekk yàlla gannaaw yonent bi gannaaw bu mu demee bàyyi na fi xulafa al arbaat aboubacar boo dem am ñaari at ak genn wàll Omar ñëw am fukki at ak ak ak ak ñett ñett di dem moom itam ñu faat ko moom Babacar ñooñu saxaaba yooyu moom yoon moom Babacar rek moo ci mucc waaye Omar dañ ko rey Aboubacar Aboubacar moo ci mucc ndax boobu fekk na xol bi jeex ñaari at la dund ak dara mu mu jógee Omar jël Omar bi mu demee. am fukki at ak ñaar ba ci ñetteel ba moom itam ñu rey ko Ousmane moom itam dañ ko boom Aliyu moom itam dañoo jaayante ak moom waa kër Muawiya ak kii ba ñuy dem ca Karbala ca ca foofu la ñu reyee lu bëri ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkoon ne nit yi ordinaire kon diina ji dafay réer waaye nag waxtu wu nekk mu ngi bees di indi koo xam ne waaye góor yàlla yi nga xam ne ñoo doon yonent bi amul sikk na Cheikh Ahmed Tidiane kenn ci ñu la bokk waaw xam nañu askanam bam silsila bi dem ba ci Fatimatu bint Rasulillahi sallallahu alayhi ak Aliyu mu gannaaw loolu ñu xam ko ci ngoneem comme ni ñu xamee yonent bi ne dund na ba am fukki at ñaar génn génn màkk bi mu amee dem ci njëgg moom gannaaw gi la dem ba ba tudd ci Baxeera mu daal di wax ko gis xàmme nag xam xam melokaan yi téere njëkk yi jiitaloon wax ci moom mu ne ku ci baayam kii ne ko abu bi ne ko man mu ne ko mu ku mel nii kenn du ànd ak moom ci tukki mën naa wax yàlla kenn mënu ko wax waaye nag ñoom xam nañ liñ dañoo suñ xamee ne yonent bi des ci yonent yi tam xaram lay juddoo te dana gàddaay mu ne ko kii dana te du yëwoot loolu dañ def lu may lu nekk pour pour pour ko kii dëppal ak moom mu dëpp moom gannaaw loolu génnul màkka lu may bi mu amee ñaar fukki at juróom ci tukki moom nga xam ne ci lañ doon uteelum labatee sayyidatuna Xadijatu radiyallahu anha kooku mooy jur kii waaye gannaaw waxtu wu nekk am na gannaaw saxaaba yi awliyaaw yi ñooy topp gannaaw awliya xulafaa yi gannaaw loolu ah, ci la. am na ñoo xam ne yàllaa leen di tànn ci asal ndax danañuy dégg ci waxi bàyyi mu ne nekk jekk àddina bi am na ñeenti ñeenti ñoo xam ne dañ leen tànn ci asmaan ñooñu dañoo mucc ci mooy yàlla dañoo dañoo dañoo kii mu ne nag waxtu ci kenn jógee rek waxtu ci kenn fàddoo rek yàlla defar kenn indi kenn ku ko remplacé mu ne moo tax bi ñuy wax jaar-jaar yi. as cosaanu yonent bi sallallahu alayhi ne mësta jaar ci jaar sëy boo xam ne duur sëy bu dagan mësta jaamu ci jaar ci jaamu xelam moo tax nag dañ ko tànn mu ne loolu dara tu mu engagé ndax nga xam ne yàlla leen mu ne ñoo tax taw bi di taw gàncax gi di sax euh, yërmande yi di wàcc mu ne ñooñu su kenn demee rek mu mu indi keneen ku ko remplacé mu ne kon dàqoo te kenn imaam yi waaye loolu itam ba ni ko yàlla defee woon ci jëm commencement yi jamono njëkk feeñ ak yonent yàlla Muhammad mën na ko def ba léegi muy tànn ay awliyaaw ak saalixiin yoo xam ne ñoom ñooy téye xamala bi bi nga xam ne noonu la euh, juróom-ñett yi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñoo enu arsh ak yàlla wa yaxmiluuna arsha rabbika waaw loolu daal ci wax ju gàtt waaye Cheikh Ahmad Tidiane mi xam ne moom mooy suñu wàll mooy moo moo ñun te ñun bañ ko jotee xam nañ amul sikk ne xam nañ ne dara faatuñu ci yonent yàlla Muhammad dara faatuñu ci yàlla kooku nag euh, feeg ñaari fan muy muy muy muy tamantaasha safar mu nekk guddi googu ci la ko yàlla jox euh, kat kat miya nga xam ne tiyaan yaa ngi koy feet ci waxtu wu nekk tarika tiyaan bi ko bi bi ko yeneen tu joxee ndigal ndax daf doon doon nit koo xam ne dafa bëggoon lu baax fu mu dégg nit yàlla mu dox wala mu war ba dem àgg ci moom su demee tarbiye ko ba mu jox ko dañu amee ba mu amee yu bëree bëri bëri su defee bii ba pare def bii waaye bàyyi dana wax ne sax ci mbir dana tax nga àgg fu nga jëm jëmmi bis li lu nelaw mu toog yonent feeñu ko ne ko bàyyi li nga amee woon yëpp nga dese bii muy tarixa tijaan moo tax bokk na ci sart yi ne soo ko jëlee doo ko boole ak beneen te doo te te doo ko bàyyi sëriñ bi la ko jox su la ko joxee pare dem na këram nga dem sa kër xamul yaa ngi def defoo waaye du ne moom nga jaayante ki nga jaayante moo yàlla yàlla nag soo demee ci paxab paxab bàmmeel sax ma nga ma nga fa nekk yow kooku moo te moom moom soo ko waxee dara danga ko def soo ko nekkee soo ko nisaree sax dafay nekk obligation li tariqati tijaan di def képp kuy def yoon woo xam ne dafa jëm ci yàlla yaa mënoo ñàkk def loolu kenn mënta doon jullit te li tariqa tijaan yi def doo ko def jullit mënta toog ne du wax astafirullah jullit mënta wax ne moom du du julli ci yonent bi jullit mënta wax ne du ma wax laa ilaha illallah te yooyu rek la ci suba ak ci ngoon ak ni ñu koy defee maanaam mel ni docteur bi soo demee ci moom tawat sa feebar mu seet la ba pare bindal la ordonnance soo demee ca pharmacie ba xamoo xamoo ban pharmacie ngay dem waaye pharmacie ba dana fekk garab yi mu la bind mu nekk ci mu mu digale ne lii da nga koy naan suba ngoon lii du bu bu naan sooy dawal bii bukk naan bi bu naan ci te te lekkoo digal ni ngay def ba jëriñoo ko waaye Cheikh Ahmad Tidiane tam noonu la ñuy def rek ba ñu àgg ci moo ñuy àggale ca eh, coobare yàlla jëm nga xam ne moom la digale ak li mu tere yàlla nañu yàlla taas ci barkeem yàlla nañu yàlla may jàmm may Sénégal réew mi la moo xam ne réew mu yaakaar la réew la moo xam ne. Euh, yàlla defal na leen lépp loo xam ne yombal na leen ko su nit ku yaraw senegal yaroo ci këri diine yi nii wala yaroo ci kepp keppaar ak lislaam soo demoon ba Màkka wala soo demee ca feneen feneen foo dem da nga leen xeeb soo leen xeeb itam doo leen naw parce que mu indiwuñ dara loo xam ne lu ñuy am moo daana Cheikh Ibrahim daana wax ne maanaam euh, réewi arab yi am na ci ñoo xam ne tur wi rek la ñu amee waaye jëf ji amewuñ ko jëf ji ñun ñoo ko amee waaw ñu ne ci mujj jamono bàyyi ñaan na ko ci ñaanamee mais yàlla ñëw naa la di waxambaane wu wu wu wu yi ñëw naa di mag ñëw naa di màggat ñëw naa di dox tànk ñëw naa ci jéeri yi ñëw naa ci asamaan si ñëw naa itam di sukkootu ma wax wala wala jarul may wax ndax li may wax yaa ma gën a xam yaa ma waaye man maay facteurs yi sa jaam ya fajal seen aajo kooku mooy suñ sang Mawlana Cheikh Ibrahim te kooku su fekkoon ne xamuñ kuy si Ahmad Tijaan xamuñ kuy yoon wi itam te niñ xamee Cheikh Ibrahim xam ko ni mu óoloo xam ko ni ni nga xamee doomam jëm jur sax su yoo xam moom daf koy rus dafay yónnee ci moom def na ma ko bastoon def na ko keneen nga xam ne dafa am kersa waaw soo suy nett di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun dañuy imaginer rek jëmmam ji rey ji moom la bakkan ba noonu la yëkkatiku gémmiñ ngi yaa bëñ yi sew een euh, yi sëq ku dijj ay ay mbagg la ku ku am ku am ay ay cër la euh, moom nga su ma nag gàttut njoolut waaye loolu ni koy xamee mooy su beroo moom kenn rek waaye su nekk mbooloo mu àndat mu daal di so su ànd ak ñoom tim nañ ca kaw loolu moom martaba la waaw mu ne fu fu su su xeex fa gën a taree da nga ko gis muy muy mu ne muñ googa jàmbaar ga la mu ne taar ba waaye moom taar ba mu ne rafetaay ba taar taar ba la mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen Cheikh Ahmad Tidiane mooy suñ souvenir ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye Mawlana Cheikh Raye moo ñu ko xamal kan mooy Cheikh Tidiane jërëjëfee Baye asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh maa ngi gërëm mbooloo mi nga xam ne nekk nañ foofu muy Badou Sène ak ñi ànd ak moom ñu ne jàng nañ 4 millions euh, cinquante mille ci ay salaatul faatih loolu nag dañ ko def pour yàlla def jàmm ci senegal xew xew xew yu bëri nañ ŋaayoo yu bëri na waaye yëf yëpp dana soppeeku yàlla dana mer ba jox jahannama yowmul xiyaamat ne ko ne ko ne ko defal dafa lakkal ñii la ma leen waxoon teel lañ ci def maanaam ñu malaaka yi sax di jàppandu ci rideau aljanna di wax allahuma sallim sallim sallim kuñ dem ci yonent yi nga ne man kat sama bopp doy na ma bañ dem ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne mbay bëgg a sujjoot yàlla ne ko tey kat duut bi sab sujjoot waxal li nga bëgg mu ne mu ne mu ne moo njëkk a bëgg fëgg buntu aljanna malaaka ma ne ko kan la mu ne muhammad ibn abdullah mu ne ko yow lañu waxoon ne yow lañ mas waxoon ne naa la ubbil nga dugg yaag sa ñooñ balaa kenn dugg yàlla ñu yàlla boole ca ñooñu yaa rabbi allah kon nag ñaar ñaar yi salaatul faatih yonent bi biñ biñ joxe Cheikh Ahmad Tijaan par ay martaba lañ ko doon jox astaghfirullah salaatu annabi waaye nag ca fin ba lañ ko jox laa ilaha illallah moom guddi katmiya gi nga xam ne ci la Cheikh Ahmad Tijaan mu ci diir tariqa bi mat kon ñun guddi gi suñ guddi la su bëccëgam bi suñ suñ bëccëg la ñu ngi sant yàlla di naan ay shabaab yu ndaw ay yoo xam ne ñu nekk ci réew mi ak ñu nekk ci biti réew mi ñoom ñëpp ñuy bind di ñëw di ñu koy noté ba mu doon 4 millions 250 mille kon yéen jërëjëfee shabab boobu yàlla na yàlla boole ci shabab yi nga xam ne ñoom ñooy ñooy ñooy shababu ahlul janna yàlla musal Sénégal aar ko ay wi ñu dégg yëpp yàlla ko yàlla dégg léeg yàlla mer léeg-léeg yàlla mer ba dënn jógee ci kaw ci asamaanu juróom-ñaar bu ñëwee ba ci benn benn benn bu wax na bismillahi rahmaani rahim wala mu ne allahu akbar wala baat jullit ne laa ilaha illa bu bu bu ni dënn googa su ñëwee ci asamaani juróom-benneel gën a oyof su ñëwee ci asamaani juróomeel gën a oyof balaa si ci asamaan si nga xamee moo ñu tiim ci suñ kaw mu soppeeku taw andil ñu gàncax andi ñu teraanga andi ñu sutura kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ci ne ala ni'matul alhamdulilahi rabbil alamin ci shabab bi nga xam ne ñoo jël jël seen bopp toog waaw kenn ku nekk kenn forcé la te kenn fay la dara ngay jàng ba mat ñeenti ñeenti millions yi salaatu fatiha loolu kii bu rëy la ñu ngi gërëm Badu ak ñu ànd ak moom ñu ngi gërëm góor gi Sarr ñu ngi gërëm Shababul Fayda ak képp koo xam ne participer nga ci lii. di leen da nga ci yow da ko dégg kontaan ci yal na yàlla fayante yow.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 wa salaamun ala al-mursaliin wa aaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu hanii'an lakum jamii'an